par rapport a tout ce qui, se, qui est en train de se passer Merci. dans le monde tout ce qui se passe dans le monde et qui influe ci li nga xam ne nii mooy développement suñu xale yi suñu mhm. doom yi ci biir kër yi gis nga mbirum góor jigéen yi nii nii nekkatul ñoom dépassé nañu stade sax ay way nañu légaliser non non non ñoom ñu ngi dugg ci biir kër yi mhm. ñu ngi dugg ci téléphone yi ñu ngi dugg ci ñi ngi fu ñu mën a dugg ñu ngi fay dugg mhm. donc man je pense que peut-être conscientisation bi bi war a am c'est plus envers ñun que di may euh, di leen di leen di leen di leen defal benn genre promotion mhm. li ma euh, par rapport ak li nga xam ne nii mooy visitu Mélenchon mbirum go mbirum affaire góor jigéen yi position la ku ci nekk am na ko Mélenchon xam nañu mhm. ne dëkk bi mu nekk loolu c'est légalisé et que moom aussi tamit yàgg na di ko di di di ko défendre donc dafa joxe rek position par mhm. rapport ak situation bi bu bu bu mel noonu mais li jot am li li am solo mooy man laa mhm. yaakaar li am solo mooy euh, gis-gis bi nga xam ne mhm. nii moom la ñu bokk entre Jean-Luc Mélenchon ak Ousmane Sonko ci déjà moom li li muy jiite France insoumise la mooy ñi nga xam ne dañuy bu dañuy bañ Ousmane Sonko Pastef c'est euh, son premier discours anti système sax lañ ko doon woowee donc muy ñaari idéologie yoo xamante ne ni xëy na euh, euh, am nañu foo xamante ne foofu la ñu foofu la ñu foofu la ñu bokk mhm. foofu la ñu foofu la ñu ànd Jean-Luc Mélenchon yàgg naa dénoncé euh, situation situationniste bi nga xam ne ni moom la ancien colon bi nekkee Afrique surtout Afrique francophone le fait que France di ci ay ci ay ci ci ci yenn toole yi nga xam ne moom la am mais di ko imposer dëkku Afrique yi wala sax di dal seen kaw loolu Jean-Luc Mélenchon yàgg na ko yàgg na ko yàgg na ko mhm. yàgg na ko kaas et ñoom moom ci li mu li mu gëm mooy que ne certes France war na am ay rapport ak dëkku africain yi mais nag ay apport ay rapport yoo xamante ne ni dafay nekk rapport yoo xam ku ci nekk da nga ciy mën a gis sa bopp mhm. waratuñu waratuñu moom li mu gëm mooy que ne France waratul nekk ci euh, mhm. euh, nekk euh, colon bi nga xam ne nii moom moo fi nekkoon di buum di buumi mais ba léegi di ko jaarale ci beneen forme boo mm. xamante ne nii. Mm. Euh, nekkul forme colonisation. mais mm. beneen forme boo xamante ne nii tey suñu économie euh, xoj ko. te suñuy ressource di ci def lu ko saf. di influer suñuy suñuy suñuy gouvernants di leen defloo yenn yenn yenn jëfini loolu bokk na ci li nga xam ne ni war nañ ko dañ ko war a dindi te loolu. moom ak Ousmane Sonko euh, bokk nañ ci xalaat goo xamante ne xalaat bu am solo la. Mhm. mais non par rapport au problème question aux mhm. ku ci nekk am nga ci sa xalaat. taxul mhm. xalaat yi ci dëkk boo xamante ne nii moom moom boppam am na droit xalaat ne mbirum góor jigéen. nekkul loo xamante ne nii war nañ ko daganal moom mu xalaat ne xëy na peut-être mbirum góor jigéen lu ñuy daganal la ku nekk te te àdduna sax moo demee noonu. yàlla dafa bind te yemalewul. ñii dañuy xalaat lii ñii xalaat lale mais le plus important mooy ku ci nekk mën a respecter moroomam ci li muy xalaat. te foofu mooy point de convergence entre euh, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon ak Ousmane ko ci seen ci li nga xam ne mooy seen i idéologie ak li ñuy xalaat. maintenant nag après ku ci nekk am nga ci commentaire wala xalaat boo xamante ne nii moom nga ciy def. mais li gën a am solo mooy que ne yenn situation wala yenn problème yi nga xam ne. moom la mm-hmm. Sénégal di dund jamono gi te xëy na peut-être. Euh, Union européenne wala sax ñi nga xam ne ñoo nekk njiital Union européenne gis ko mm-hmm. te dëgg ci seen tànk déjà ñi ngi doon wax mbirum euh, euh, bateau yi nga xam ne nii mm-hmm. moom la Union kii licence de pêche yi ni ko niñ ko niñ ko joxee Union européenne ak mm-hmm. Union européenne moom apport bi nga xam ne ni moom lay am jugewuñu si foofu rek am na yeneen situation aussi tamit visa yi nga xam ne nii moom la ñuy séddale di ko joxe pour am visa Schengen mais c'est tout un problème mais waxuma sax mbirum am ko sax mais xaalis biy dugg ci mbirum visa Schengen yi rek mais ay milliards la yoo xamante ne ni sénégalais yi dañ koy ñàkk au profit de li nga xam ne nii mooy yeneen mooy dëkk étranger yi. te mu nekk loo xamante ne nii war nañ ko xoolaat war nañ ko mm. war nañ ko gën a gën gën a saytuwaat da ngay dem uti visa nga déposé boo déposé boo amulee visa duñ la sax remboursé say mm-hmm. say frais frais de visa loolu fu ñu ko teg ambassade Japon boo fa demee di fa déposé visa. Mm-hmm. boo amulee dañ koy delloo. te pourtant Japon bokk na ci puissance yi nga xam ne nii ci àdduna bi lañu nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc il y a beaucoup de sujets yoo xamante ne nii mm-hmm. c'est lié au développement économique c'est lié à l'intégrité dëkk bu ci nekk mm-hmm. ku ci euh, kii di euh, ku ci nekk war na ci war a mën a gis boppam mm-hmm. waratul nekk benn rapport boo xamante ne nii euh, dañ leen di xoolee comme l'ancien colon ni mu fi nekkee woon di def lu ko neex di def lu ko saf teg ci nag nekk ci complicité ak suñu nguur yi yenn nguur yi sax laay wax euh, lu ñu bëgg a jaarale rek jaarale ko ci ñoom après muy yomb loolu dafa war a jeex te foog yaakaar naa mooy gis-gis bi nga xam ne nii moo mm-hmm. meññ ci ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo doon co-animé euh, conférence su démb bi voilà Louis Christophe Thion moom la ñuy dalal tey ñu lay ziar monsieur Thion